ni ñu ko sakkoo rek mooy indi ay kaddu ji ku tedd ba ma Ahmadou yi Xadimu Rasul mi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Karam Mbacké Noreyni di waaje di waxee ba tax bu nu wooyee topp bi ak gëstu mbiram ni sëriñ bi ne ñàpp ci rasulullahi sallallahu roy ko ci doxinu biir doxinu bitti mu ne ñàpp noonu ci sëriñ Tuubaa rek roy ko ci doxinu biir roy doxinu bitti sëriñ Tuubaa dafa matale bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na fa ku nekk la ko tax a jóg waaye moom dafa wax li ko tax a jóg laysat li al yawma haajatun u'ammiluha si waxti kay ka xafal xalbi wal badan yow ma jenn yitte wala genn bëgg lu mooy roy la roy waaye roy la sama xol am na ku doon tàgg borom daaru yi ba mu wax loolu la nga wax bàyyi am te xëy na xaj yi mi waqta day tabii dil xawul la fi andi xatta xusta bu shrew jox ko sa lépp waaye roy ko nag roy ko roy yu nu biir ak roy yu nu biti ci sa wax ak ci sa jëf ba dajale mbooleem gënee la man lépp Sëriñ Tuubaa nag dafa am du ko taxoon a jóg mu nekk yitteem moo jaam ñi seen adduna ak seen ëllëg ndax adduna bi ko suñu borom sàkkee mbër mu nekk wàcce na la fi defe naa jàkkaarloo bu nekk am na diggante mbërum yàlla mu nekk ak noon boobu di iblis waaye dafa amaat ñeenti noonu yu tudd bakkan ak bànneex ak adduna seytaane noonu yooyu nag te leen dafa jafe te Sëriñ Tuubaa dafa mucc ci ñeent yooyu yépp boo doon laaj iblis fi ne Sëriñ Tuubaa nit ñi ñu koy jàppale ñoo di ay noonam sëñ Tuubaa moom benn adversaire la am te moo di Iblis rahmatullahi alayhi taxaw na suñu borom danaa taxaw ci si yoon bi gàllankoor jaam bi fa ñu jëm duñu fa yàgg li nga woote duñ ñëw na ko may danaa xëcc jaam ñi ci ku ma nangoo topp ma ma wammat ko teg ko ci yoonu jub jaare ko ci Rasulullah indi bayit la kon kooku rek la amal jàkkaar waaye bu dee yi ci des moom ndax li mu wax adduna mi gën a doy waar adduna suñ Tuubaa ne mooy sàkkoo mucc ci man xanaa boo demee ci miimiya ba muy lim ñeent yooyu fa nafs wal xalq wa cheytaanu qad farahu min xasdi durriya li dun yattaqat salama kon adduna moom mooy sàkku mucc Serigne Touba Serigne bi nag daa waxoon moom ku ànd ak moom nooy mel xam nga tey man nga ne ku bëgg man nii ngay mel Serigne Touba ne man tawajjaha ila rahmaani rahimi raafaqnaahu ku gëm ku jëm ci yàlla kese jarul gestu maa ngi yow ànd man tawajjaha ila rahmaani rahim ak sheytaani rajimi faaraqnaahu ku jëm ci yàlla boole ci seytaane nag tàggoo nañu kuréelu Serigne Touba nag ku ci tàbbi mucc nga ci seytaane ndax najayta man bi yata'allaqu ma'a min ash-shayaatini fa suqris ma'a kon la ca nekkit mooy Serigne Touba dafa xare ba daanu ba dàq te dis gor su mat ndax loolu moo ko waxaloon boppam ama day baat boo xam ne buñ miin la. Cheikh Issa Diagne la sëñ Tuubaa ma sax ci njëriñ na ko Issa Diagne na nga seere ne as gor la ak jullit la na ko as du wor ab jullit du fen as la ab jullit la loo gis ci àdduna nag moom li mu daj moo nu may dina am lépp noonu bi ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa dañ cee boole wari wata yori kër di dund dund gu neex moom bi muy liggéey rasulaay amuti kër dara xusuur yi xalat wal ahlu an yi tafaaraxat li ma maddaxi alladi anhu lmadihu xasiyu sama kër yi gent na sama njaboot tàggoo nañ nii lu def ci moom it ba ba léegi-léegi nga dégg sax ku koy jéemal linkaar nii nu def ci moom jox suñu bopp jox ko suñuy wéyju jox ko suñu lépp loolu la def ci rasul lay juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam nam def ca kee rek la ñu ko yaakaar ñëpp def ci moom mu gënal leen seen alal gënal leen seen bakkan gënal leen seen seen te lépp lu baax fu mën a nekk di daw ci sëñ bi rekk la jëm si ndax suñu borom jox na ko lépp bu dee xam-xam la bu nit di jàng xam-xam yi lëm ci ñu bari mu nekk xëy bi ci ñoom yàlla tabal na ko ci biir ak dënam yaqudu ulumul xëy rabbi muallimi ila kalkali faydan yori lafza wal maana kon loolu bu dee leneen lu nit di wuti noonu la mel te ku ne dalaa dina leen ku ne dara nekk kon bu ñu toogee ci ëtt boo xam ne ak borom daaru Muxti la te borom daaru bi mës ta joxañ dara mës ta joxañ kenn lu muy sëñ Tuubaa benn chaar mas damaa dégg Baye Cheikh Khady wax ko yàlla na ko yàlla dolli ngën a ne rek la ma benn symbole mooy lu sëñ Tuubaa bëgg dana am te lu ma sant naa ko def loolu nag defe naa dara lu ni mel amut moo di dogu moo di lépp joxe sa bopp lu sëñ Tuubaa bëgg dana am lu ma sant danaa ko def te jamono boo ko sëñ bi di bëgg ak di ko ko sant jamono bu jafe la jamono bu metti la borom Daaru Muxti taal na ni këram ba tàyyi mu nekk ak njabootu Serigne Touba gi di bitti di fanaan cim sàq ak njabootu Serigne Touba gi doy na ci gore ak baax ci moom nga déggee njabootu Serigne Touba tawat Cheikh Ibrahima julli ay rakam ñaan yàlla ay rongoñam di tuuru jub dëndam mu ne bu njabootu Serigne Touba gi naree dem naa tey la sama bakkan man Ibrahima bañ ko fekk wala Cheikh Mamadou Mouhamadou Awa Balla mii ma wala sama lay soxna fay gi sama nekk bu buñ ca xoolee rek par rapport su ñun suñu jamono sëñ bi sa bàyyi laa gëm ak ab sëriñ nangam ak borom daaru waxut sëñ tubaa bu naree dem dane bu doomi sëñ tubaa naree dem ma di ko laa xam naa ñàkk saa bakkar man ci am wattee ko doomi sëñ tubaa ak sëñ mu daw balla ñii na dem waaye na soxna fay gi sama lay dem ngeen doomi sëñ tubaa dund xoola gi ngor loolu jaroon na adduna di ko waxtaane borom daaru des na daana si ko tegi fetal di ngir lan di ko xupp ak a tiital ngir Serigne Touba te kenn déggul ñu ne da doon xëcc tool baa muy xëcc dëkk baa mu bëgg lu moom bokk na ci ñi mujj sañ 1912 la sañ Serigne Touba mos a sañ ci dëkk wan ko ginnaaw Cerno dëkkaat baa mu dëkkal fa kennam amul fu mu dëkk amul lu mu ne Serigne Touba nekk maanaam borom daaru néewut sëñ bee ne Serigne Touba ne moom rek la dàkk moo tax mu am ci Serigne Touba lu ne la Cheikh Abdou Khadir Mbacké doon wax Cheikh Abdou Samad Serigne Souhaïbou waxalaat na ma ko ne Cheikh Abdou Khadir da toog naa mu ne suñu bàyyi Cerno am na ci Serigne Touba lu kenn amul man ci lu kenn mënul xam ci lu kenn xamul te loolu la ko mooy mooy gañaayu rek mës wàcc mës ta noppul damay wax ne bu buñ doon fàttaliku histoire borom Daaru Muxti di ko xool benn taalibe bi bu ne war na cee jàng li Cheikh sëñ Cheikh Amadou Mbacké Kara wax ne Sëriñ Muntaxa dana ko borom Daaru lañ ñu lañ ñu xooloo woon roy na ko xoole coono borom Daaru Muxti ci àdduna lu ne daj na ko di lakk say kër ngay fanaan biti ñu di la xiixaan di la reetaan lu ne ñu di la ci suub nga boole ko ngor ak dëgër te moom mënees naa jànge ci moom kat ndax bi ko Sëñ Tuubaa di batale fanweeri at rek la fanweeri at na nga assumer ses responsabilités Sëñ Tuubaa dénkul Cerno dara manqué kenn du dégg ñu ne kaas ba tojoon ginnaawam ba bant ba réeroon ginnaawam ba dong ba xàccoon ginnaawam ba lenn lu xew ginnaawam garab gun fi mas a samp borom dëru suuxat na ko bi ñëwee muy ker xool lenn moo dégg na ba tey almuridu sadiq al muridul wafi lu ci nekk dégg na ko murid saadix nga yaa ki matale la nga jaayante woon def nga kon nag ku am lu mel noonu la nga war a xam mooy adduna bi coow li bari na tappale yi bari na caaxaan yi bari na waaye nag lu yàgg-yàgg dëggay mujj sëñ Tuubaa moo ne woon alxaq xaqun wala yanqalibul baatilu wal baatilu baatilun wala yanqalibul xaq afa man kaana ala alxaqi wa in kaana waxda la yetihul jamia wa man kaana ala albatin wa in kaana maahu aljamaa la yatrukuunahu wa yabqa waxda imma ajilan aw ajila sëñ Tuubaa na lu adduna yàgg-yàgg dëgg doon dëgg te du soppi ko neen ku ne ci dëgg bu la ñëpp wanee ginnaaw bis dana ñëw ñëpp ñëw ànd ak yow bu la ñëpp toppee mujj bàyyi la moo xam mu gaaw baa mu yeex kon tey jii nañu fàttaliku ñooñu di ko waxtaane di leen bàyyi seen xel ya adduna jaxasoo te ñi bëgg a dagg rang gi te kenn du leen rang lii arrangé wu leen damaa wax ne nit nag bu dee kenn du takk batsam kenn du ko bayali tool amutub dayire kenn du ko siyaare bàmmeel lu bàyyam kenn du ko siyaare kenn xamulu ko tus boo jógee gis kun topp ak di ko liggéeyal day jàpp ne pexe la ak li waaye bu dee pexe yàgg na 1895 maam yi ñëpp a ngi foon kenn risqué woon di Ahmadou Bamba fi cer tey nag neex na ku ne ma ne yaata yu ma ginnaaw boo ma ne ñaari baat ña mbooloo di la topp am na ñun tax nga jaaw jaawale matériel ak jërëjëf Serigne Touba. kon nag. jërëjëf Serigne Touba. maa ngi daaneel sama kàddu li ma ci yeggale mooy sëñ sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni man damaa wax ne benn wenn ñaas laa am muy man bambalox laa tey de kenn sama boppi ba wax ko ne ko yaa moom waxuma ko kenn ku may ka ma jébbalu laa wax yaa ma moom sëñ Moodu mii boo gisee ba ma wooyee buy guddi ma wuy si ko buy bëccëg wuy si ku ne yaa xam na nga seetlu waxoon naa ko ne seen doyut maa ko waxaat seen doyut maanaam loo seen te yëggatoo ca mandu ca ba yàgg ci bi ma jaxasoog moom li ma jëkk remarqué ci moom ñaar neex na ma ci marqué na ma ci bi ci jiitu mooy sëñ Modou Kara xajoo na ñëpp musuma jot téléphone baa may wax ak moom ba dégg mu tudd nit musu am moom tudd nit cib safaan baa nga ñeme ko waxu safaan musuma ko dégg bi ci toppit tabee jàpp na ne ku mu gis moo la war a dimbale jàpp na ne ku mu gis moo la war a taxaw jàpp na ne ku mu gisit la war a jox loolu na ku ni mel boo wootee des na la wuy ndax nit ñi yàgg nañ ci terrain bi di ami déem a ki daqaare ki buy di ko wëral seen bopp ba am kenn tungu leen kenn jëppalewu leen ba nu nekk fa ñu ne ku leen woonu wuy si la jikko jëng leen wooye la lii muy dajale bu ko neexoon du ko def ndax ceernoy maamam ba addunay tukki asamaan si di fi ne jant bi fi ne barkeb sëñ Modou Kara yi di sax ndax sëñ Tuubaa ne barakat yi waasiatun wa baaqiya ko di hibati safiya ba addunay tukki bu doomam génnee ñu du ko sukkal di ko raamal kon buy sonn dafa bëgg nit ñi jariñu waaye wóotewul ngir moom mu jariñu te defe naa nit mënu koo defal lu mu fekkul sëñ Tuubaa defal ko nit mënu koo yóbbu fu mu fekkul maamam Cheikh Ibra Fati borom Daaru Muxti yóbbu ko bokkam yi mu bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp bàyyi seen yitte yi seen jataay bi yombul ci Daaru Muxti ñu wuy si ko jikkoo ma ko waral te koo wiital wax ak moom lam lay jëkk seere ci moom mooy ku baax la ku yaatu la koo xam ne lu ne joxe nga ko ci ay alal dama ko mas a wax ci Cheikh Abdou Samatum Sëriñ Soy bu ma ma ne maa ngi koy sant moo ma yóbbu mag am ku ne nanga mën a ko dégg lii erreur mooy wax ci koo xam bu nee diw daal boo xamee ci moom baax neel baax na mais boo dundee nit xam ci moom lu baax it wax sëñ Modou Kara bu la wooyee na ku ne seet ñi ngay jaxasoon li ma xam mu man ko ci ay bayit damay wax ne budul xasida yu siiw yi ñuy wax man mës ta wax ba si xasida gu ma xam fu mu nekk bayit wu ma te man kat bu ñu doon conclure bayit ñeme na ma dem ndax aw ma yitte yi benn yitte wuti wu ma dépense daqe jiwu ma dara sama yitte mooy saa yu ma xëyee te yoruma mémoire bu ndaw doo un giga bay nangam ak i damay enregistré lu bari ci sëñ Touba mu ñor ma fu ma ko dégg mu jaral ma jóg mais saa yoo waxee ak moom téléphone mu wax la bayit wow lijjanti ko dana def yow sa problème mu dóor la weneen wu gën a kawe boo ko tuddee tudd sëñ Touba mu wax la loo xam ne da ngay xeeb sa bopp ci dimension bi nga jàppoo loolu nag kon ku la ca woo man de mosumaa wax baa mu woo ma ci lu dul ku tedd ki te def defit turu sëñ bi it dégg mu di tudd ku tedd rek lay wax ngaa daanu mu jëkk laa daanu yow loolu nag jafe na kon sëñ Modou li mu yéene lépp ñëw fii ci Darou Mouhty di taxawee nun day ay taalibe rek lañu te du ñu doon dara lu dul ay taalibe kon mbooloo yee yeeg àndandoo yeeg yépp nan dàkk bëggu sëñ bi dàkk ngërëmul sëñ bi te di ko wut te mhm. kenn bañ a nax sa bopp ndax nax sa bopp mooy rek li sëñ Tuubaa daan wax ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néew ca ba bisu pay ba kon nag maa ngi jéggulu sëñ Euh, Abdul Xuddus noo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay sëñ maam Thierno ak Cheikh Ousmane ak su kilifa yu baax yi fi nekk tey bi ñu ñëwee ci bëccëg sëñ Abo mii moom sëñ Fallou si Dieye montor bu rafet bi gis nga bi ma jox dañu nekk di waxtaan mu daamu te booba la mu doon seere da doon seere ci sëñ euh, Modou Kara keneen mën a seere keneen mën a seere te loolu li ko waral mooy lu mu def la lu ne ku ne laa xam mbakki mbakki moom lu ne laa xam ci nit ba mu des ñaar fit ak fulla moom xaw ma lu mbakke mbakke ñax waaye loolu bokk ci ma aw fit ak fulla te loolu ci seen maam lañ ko doon ne ndax seen Basiiru moo wax sëñ Muntaxa na ko sëriñ comme fulla la noo ko def mu def lañ mbakke mbakke noonu la mel fi ne boo ne ko nikk la nikk na boo ne ko yalax mu ne la yël bëndi loolu bi loolu nga war a roy am fulla ku lay yëg nga yëg ko ku nga jàpp ne amul te loolu ñuy seere fii ñi fi nekk nii kenn ku ci nekk bu fekkee ne sëñ daana ko taxaw bu yàggit tey mënal na boppam kon bu nu dellu see taxaw di ko seere ci moom loolu am na lu ko waral barki démb sëñ Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khadim yi dama toog rek man ni ma ñàkk fayda mu ñëw sama kër ëpp na maam Thierno mooy moo jur baayam mm. yow yaa ni toll nañuy bàyyi loolu nit ñi nañuy bàyyi jaawale ay ngoos ba ko koy wax ne jaawale ngoos baaxul lu yëf jege-jege na xam ne ñeex lu mu tàng-tàng du taal bopp dëgg la ñeex mën naa tàng ba kun ko sotti nga lakk na mais ñeex du taal bopp ku dul sëñ Tuubaa waa këram gaa ñi ñeex mu tàng la man ngaa fuur man ngaa lakke mais buñ la sottee ci bopp ca suuf nga jëm kook sëñ Tuubaa koo teg ci xalu sawara woo jël teg ko ci bopp mu boole ñeex ak bopp lépp taal mooy sëñ Tuubaa ak waa këram te sëñ bëgg ba def nu ay jasineer def waa këram yi ay pëpalin dëgg la loolu faw ñu bàyyi ko xel te sëñ Tuubaa nee na woon sama waa kër ñi ku leen nar a weer bala ñoo fenn nga wow wër ngi wër leen ci kajoor ak bawal fu leen neex foo leen dégg ñu ne sëñ ma faal mii toog da naan bàyyi góor a sëñ mu raaw bàll la doon defal ndàngam mu ne yëkkati naa leen te du doo leen wàcc xanaa loolu sëñ mu raaw bàll la ko xool wëral ci kajoor ak bawal ba xam da dégg ñu ne bàyyi diw mii ko bañoon sëñ Tuubaa la ko xeeboon sëñ Tuubaa la ganu mbàkki mbàkki foo ma sañu dalay toroxal ba yàgg nga joxañ ne teraanga jee ca moom la a torox moo fi gën a bon ngay dégg